qaala hal asiitum in kutiba alaykum alqitaalu alaa tuqaatiluu qaaluu wa maa lanaa alaa nuqaatilu fi sabiilillaah wa qad uxrijnaa min diyaarina wa abnaa'inaa falamaa kutiba alayhim alqitaal tawallaw ilaa qaliilin minhum wa laa aliimun bizaalimiin qadiirun alaa maa yuriid boo mee bu njëkk bi benn aay bi booy xool am na fukki xaaf boo fukki xaaf boo xoolee aay ji bi ci topp mooy laqad sami'a llaahu qawla llaziina qaaluu inna llaaha faqiirun wa nahnu aghniyaa'u sanaktubu maa qaaluu wa qatlahumul anbiyaa' bi xayri haqqin wa nuqulu suuqu asaabal ariiq qawiyun laa yaxtaaju ilaa muayyin ñaareel baa ngi noonu ñetteel bi mu ne alam tara ila lazina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu salaata wa aatu zakaata falammaa kutiba alayhim alqitaalu izaa fariiqun minhum yaxshawna naasa ka xashyati llaahi aw ashadda xashya wa qaaluu rabbanaa lima katabta alaynaa alqitaala lawlaa axxartanaa ilaa ajalin qariib qul mataa'u dunyaa qaliilun wal aaxiratu xayrun liman ittaqaa wa laa tuzlamuuna fatiilaa qahaarun liman taqaa wa asaa ñeenteel bi mooy watlu alayhim naba am ne aadama bi isqaraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima walam yutaqabal min alaaxari qaala la aqtulanaka qaala innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiina quduusun yahdi man yasaa juróomeel bi ci mujj nag mooy qul man rabbu samaawaati wal ardi qulillaahu qul afattaxaztum min duunihi awliyaa laa yamlikuuna li anfusihim naf'an walaa daran qul hal yastawi al-a'maa wal basiir am hal tastawi az-zulumaatu wan-nuur am ja'aluu lillaahi shurakaa'a khalaquu a khalqihi fatasaabaha al-khalqu alayhim qul qaharu qayyumun yarsuqu man yasaawul quwata léegi lii mooy juróomi ay yi nga xam ne benn bu ci nekk dafa am fukki kaaf léegi nag yépp boo boole juróomi ay yëpp muy xamsoona kaaf muy juróom fukki xaaf ñi fa tuddee sur bi xamsoona xaaf ay yi yi lum manut amut lum manut moom ay amul wallaay lasim képp kuy jàng ay suba juróom ngoon juróom yàlla dana ko wuttu ci xayu noonam ak xayu nit ñi ak jinne ak sayaatin yi ak ñi fittirlu ñëpp naka noonu ku ko saxal a jàng suba juróom ngoon juróom yéene ci yàlla aar la wallahi kooku dara joo bu fekkoon ne ku wàcc nga maanaam da ngaa nekkoon ci place boo xamee ne dañ laa suufeel joxuñ la xàq place ba ak yelleef gam ci am wallahi la asim nga koy jàng suba juróom ngoon juróom yéene ci yàlla aar la kooku doo folleeku mukk ci daraja ja nga nekkoon bu fekkee daraja daraja nga nekk doo folleeku su fekkoon ne folleeku nga fa dañ la fa yëgalaat te itam ñoom ñëpp lay wekk ba noppi nag di la di la sàmm di la aar ci waxtu ñoom ay yi képp koo xam ne gis nga ay nood yu jëm jëm ci yow mu wóor na la ñii kat mënoo mucc ci ñoom dañ lay lor boo leen seen rek waxal bismillahi sil jalaali jàng ay yi juróomi ay yi. sa noon donte dañoo buuroon daw njëw ci yow sax bu ñëwee duñ la faale dañ lay romb waaw fa haasihi min aqtaha nisaali maanaam ay yi boo ko jàngee ngir sa noonu moo dàq bocci moo dàq dog ay fett yooyu a waaw waaw waaye nag boo koy dóor na nga xam ki nga koy dóor na nga xam ki nga koy dóor ki nga xam ne da ngaa joteeg moom wala nga bañ mu joteeg yow fexeel di di di ko jàng ngir kooxee waaye bu ko jàng ngir leneen ndax ñoo dàq bocci li nga xam ne moo di ay yi képp ku koy jàng tooñaange bu la waaye tooñ ci yàlla da koy këpp ci kawam jàng gi nga koy jàng rek ma la sangoo ko nanga ak yëpp fexeel daal di ko jàng rek. na ko noonu noonu boo mën a am noonu boo yëg ak boo yëgut yow noot nga ko te dana la may xëy ba xëy ba moom jullit mu ne war na ko ñaan mooy ku la gis respecté la. te itam doo tëli mukk lu ñuy wax kattan moom koy am. na ko noonu su fekkoon ne dañ laa njabar te yëgoo ko wala ñi kañaane te yëgoo ko yëpp aaya ji da koy da koy dindi da koy saafara da koy faj ci jàng gi nga koy jàng su fekkee ki njabar la da koy dind bu fekkee njabar guñ la ku la njabar tam day dellu ci kawam ku la kañaane itam day dellu ci kawam. ji ku koy jàng ku ne sa noon buñ la séenee rek seen xol yi mi ngi tëf tëfi ngir tiit ci yow waaw nga xam ne buñ la séenee rek buñ boo damoon koñ sax te yow séenoo leen ñoom séen nañ la rek te waa ji sa noon la rek walaay xolam mi ngi tëf tëfi ngir aaya ji ngay jàng te nag foo mën a nekk nit ñëpp dañ lay sopp yow mi taxaw aay ji di ko jàng foo mën a nekk ci kaw suuf rek fa nga nekk ñëpp dañ lay sopp aay ji ku koy jàng lu ñuy barke moom ci yow lay góor naka noonu am na bind bind takk maanaam ku ko bind juróom-ñaari yoon juróomi aay nga bind ko juróom-ñaari yoon fexe ba ëwlu ko ab téere ko ci sa loxom day joor kooku sunu bam doon musal ci bépp musiba yi nekk ci guddi ak bëccëg yi musiba yi bay ko ci masrix ak maxrib ak musibam jinne yeeg nit ñi ak musiba yi bay ko ci ndey jorog càmmooy ak mboolem xeeti xaywaan lu yukkat ci kaw suuf rek lu wuteeg nit ak jinne rek yow bi nga takkee téye sa loxo ndey jor yow mucc nga ci yi la wax yow. wallaay naa sin kii ay ju lu ne lu ne lu ne ci lay dox naka noonu dañ ko bind juróom-ñaari yoon dañ ko bind juróom-ñaari yoon yoo xam ne du bokk ak yeneen juróom-ñaari yii ma la njëkk a wax. yii moom sa loxom day jor bi nga koy takk mooy bi njëkk bi mën njëkk wax. yow mi nga xam ne dangay faral di ragal di tiit foo jëm tiit dafa am ci nit ñoo xam ne wallaay seen xol dalut gis nga juróom-ñaari ay boo ko juróomi ay boo ko bindee juróom-ñaari yoon boobu danga koy naan bindaar ko juróom-ñaari yoon takk ko jeex na ragal moom yow doo dem fenn ba jublu fa ragal fa wala nga nekk fa ragal fa sa day dal foo mën a dem rek noonu lay mel. ba tey des na ko bind juróom-ñaar moom juróomi ay yi takkal ko xale kooku du ragal mukk du ragal lu yàlla bind xale boo ko takkal bind ko juróom-ñaari yoon ko ab xale jeex na. noonu nag leneen lu dul noonu nag lépp xam nga li xale day toog rek jooy lu bari bëri domaar bi ñoo ko doon xam waaye dafa am lu muy gis di jooy bu ko defee doo ko xam fekk du xiif du nangam déedéet. waaye gis nga lii ku ko takkal xale bind ko juróom-ñaari yoon takkal ko ab xale du ragal mukk du gis lu muy ragal. naka noonu ku koy jàng suba ak ngoon kooku yakuuna mahbuuban hindal xalaayiqi walaw kaana yaduru bihim bi nga ko jàngut donte mbindi fa daan nañ la kañaane di la lor ba nga ko takkee nga mucc ku koy jàng ci suba yi ak ngoon yi mbindeef yëpp lay mbindeef yëpp lay mujj sopp la seen xol yi mujj sopp la donte sax duñ la daan yéene jàmm dañ la daan lor léegi nag dañuy mujj ñëw nag sopp la ñoom ñëpp ci jàng gi koy jàng waxuma la sax tax ci laa def jàng gi koy jàng rek naka noonu ku koy jàng suba benn yoon ngoon benn yoon donte benn yoon la kooku wa yakuna mukraman da danga don ku ñuy taral te am mën na hoo minal faqri nag yàlla da lay jëlee ci ñàkk musal la ci ñàkk waaye wa yakuna mukraman foo dem rek dañ lay taral sopp la. naka noonu ku ko jàng suba donte benn yoon nga ko jàng ci suba gi bis bu ne benn yoon ci suba gi kooku do gis mukk ñàkk maanaam mititu ñàkk moom. yow suñu borom da koy dindi caw maanaam li waral nit ki ñàkk ba muy dund ay coono ak métit saa boo ko jàngee xëy suñu borom musal la ca wa man qara'aha sabahan laa yura asabal faqir waaw doo gis mukk mbugal moomu te yàlla yàlla musul ci ñàkk ndax yonent yi mos tuq yi ci yàlla musul ko ci ñàkk naka noonu ku faral di ko jullee gaye ku faral maanaam di ko jullee gaye muy aay yi di xam suuna ngay julli gaye rek jàng aay waaw kooku suñ borom dana ko wuttu ci lépp luy noon musal ko ca naka noonu ku ko saxal jàng tabbi ci wàllu nguur gi wàllu buur buuri adduna yi suñ borom dana ko musal ci lépp luy seeni na naka noonu ku ko bind naan ko nga xam ne naan rek nga koy def lépp nga naan ko yàlla dana la wuttu ci lépp luy lore moo xam jiin la jiit la ak ndegmenti xeeti gan yeeg yépp ba yow kenn du la ci mën a lor naka noonu suñu borom dana la wuttu sa ndeyjoor ak sa càmmoñ ba lépp luy lore rek yow doo ko gis yow lépp luy lore rek ci diggante asmaanu suuf yàlla dana la wuttu te ay malaaka la kat wal malaaikatu hawluhu yamiinuhu wa simaaluhu yaxfusuuna xamaa yuduroo laahu waaw maanaam saa boo ko bindee ba noppi naan ko yàlla mooy yebal ay malaaka yoo xam ne ñoo lay wuttu yow jaanaki jiit ak ndeg menteeg malaaka ñoo lay sa ndeyjoor sa càmmoñ sa kaw sa fépp di di la sàmm yow amu lenn looy mën a lor ci diggante asmaanu suuf naka noonu ba tey waman kataba wa yasrabuhu wa daqala ala amirin baabuhu kooku laa yaduru ko kullu sani ilal xayru te wa yuhibu hubban sadidan wa yusidu kulluhu ba tey moom it naan la ku ko bind ba noppi naan ko dem dugg ci buntu buur kooku buur ba du la lor mukk yiw rek nga fiy jëlee yiw rek te buur ba moo lay mujj bëgg la bëgg gu tar te sa lépp dana dolleeku ci naan gi nga ko naan. naka noonu wa man qara'ahu fii jawfi layli amanahu llahu min xawfi fii dunya wala xarit nag ku bàyyi ba diggu guddi maanaam diggu guddi ay 2 heures 3 heures nga jàng ay yi sunu borom dala musul ci lépp luy ragal adduna ak alaxira lépp luy ragal adduna alaxira rek sunu borom dala ci musul yow ba nga kon ay ju amam solo la muy juróomi ay yi boo demee ci téere bu tudd xasinatul asara danga ko ca fekk ñu indi ko fii di waxtaane am na xadis boo xam ne ñu ngi koy askanale sayyidatuna Aysata radiyallahu anha am na ñu ne daif la waaye nee na man kataba yowmal jumuati haasil ayaati alxamsu fiha xamsuuna qaaf fa surbuha kuku adxala fi jawfi alfu sifain wa dawain wa alfi raxmatin wa alfi raxfatin wa alfu yaqinin wa alfu quwatin wa mixatu alfi nuurin wa nasaa xanhu kullu daa'in wa qillin wal xusni wal xammi Aysatu nee na képp ku bind xamsoona kaaf dégg nga ci bisub aljuma rek nga ko mën a bind nag naan ko nee na dana yàb yàlla dana tàbbal ci sa biir junne saafara junne sifa u maanaam yàlla dana ko def sa biir waaye nag ak junne médicament ak junne yërmande ak junne ñeewantu ak junne yëqin ak junne kattan ak junne leer te yàlla dana dind ci yow bépp jàngoor ak mbañeel ak njàqare ak ñagg-ñagg xol koo xam ne bind na xam soona xaaf ci bisub aljuma ba noppee naan ko ci bisub aljuma rek nag nga ko mën a bind ba tey wax nañ ne salmaanu farisi dafa waxoon yonent bi na ko mun su xomri amiltul al asiyaana wa kaana axiru sama dund lépp dama ko passé ci moo yàlla te maa ngi sama mujj dund dama bëgg nga xamal ma loo xam ne danaa ko jàng ndax sama dund man fee yàgg lool ma gën a yàgg ci àdduna waaye yàlla jéggal ma sama bakkaar yi mu xamal ko ay yi waaw mun su umri amiltul ansiyaana wa kaana aqru umri allamani say an aqra'uhu ataaya tuulu umri wa yaxfiru nee na ma xamal ko ay yi kon xam soo xam daal lu bari bari ay njëriñ la ci koo xam ne naan na ko wala benn takk na ko wala mi ngi koy jàng ndax ñetti façon yooyu yëpp mënees na ko cee defee waaw ah, ki ko takk ak ki ko naan ki koy jàng lépp te di ko saxal njëriñ li ci nekk kenn xamunum toll. xam soo na xaaf bëriwul ñu ko xam am na ñoo xam ne nag moom tur rek la ñuy dégg ñi xam ne seen gëstu xóotut maanaam tur la ñuy dégg nii te duñ xam sax lan mën nañu bañ a xam sax lan la tudd lu tax xam soo na xaaf waaye daal tur la woo xamee ne am na ñoo xam ne tur wa lañ xam mais xamuñ sirwa xamuñ sir yi ci nekk ak njëriñ ya ci nekk am na ñoo xam ne ñu ngi koy jàng sax te xamuñ ko nag ndax xasida gi di Hisnul Abraar bëri na ñu koy jàng te xamuñ ni ñu ngi dox ci eh, xam a xaaf xamuñ ni ñu ngi dox ci siru bi te li tax sëriñ bi yéemi mooy dalay yégal ci naaru góor woo xamee ne xamoo fa mu dëkk xamoo xamoo fu mu bay ko xasida yi ñoo mel noonu xasida yëpp li ci nekk njëriñ kenn xamul ko da ngay jàng rek di yëg da ngay jàng rek mu di la yégal ci ay daraja darajaat yi ngay yëg kenn du xam nu muy toll waxuma la alaxira waaye adduna rek daraja yi fi rek kenn xamul nu mu toll te loolu yëpp yaa ngi ko mën a amee ci xasida yi yaa ngi ko mën a amee ci barke xasida yi yaa ngi ko mën a amee ci barkeb njëriñu xasida yi moom dalay indil njëriñ rek waaye du la wax njëriñ yi su ko defee ngay jàng mu lay defar ci duna ci saahir ak baatin léegi nag mu indi juróom-ñaari ay yoo xam ne si Ali ibn Abi Talib nee ku leen xëy jàng moom da koo warlul sax nee na asamaan daanu sax kaw yow nga gaañu yow maa la warlul yow